alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah mbokk yi salaamaaleykum nit ku tedd ngi ni toog ak ñun yoo xam ne jullit bu yàgg la ci jullit ni ngeen ko gisee nii ci diine ji tijaan bu yàgg la ci tarixa bi taalibe baay la bu yàgg ci fayda bi mag la ñu ko gisee nii ak xew xewi àddina bi yooyu yëpp terewul mu bàyyi ko fa ñoo bokk ak ñun suñ coono yi ñu nekk ndax lan dëggal di nga xam ne jaayante na ak yàlla ci ànd ak Cheikh Ibrahim bañ taseeg moom alaxira ma na wa siddiqin ma annabiina wa na wa shuhadaa wa saalihin wa xasuna ulaika rafiqan yal nañu yàlla boole ci ñooñu yal nañu ci yàlla bind jox ñu cëram teew biñ teew ci kanam góor gi tey ku ne xam na ne teew nañ ci kanam kanam barke ndax am na dund yoo xam ne ku ko yàlla dundal ci def lu baax ba màggat ci boo ko toog ak moom gëneel la daraja la gëneel googu mu nekk daraja googu mu nekk yal nañu ko fi yàlla may yal yàlla musal ci musiba yi di xew ci àddina gannaaw loolu yéen waa Mérina ñu ngi leen di ñaan xale ak mag góor ak jigéen ñu fonk seen dëkk bi ñu jox seen dëkk bi daraja ñu jox seen dëkk bi ne ay nit ñu civilisé ñoo fi dëkk ñu jox dëkk bi ne nit ñu nit ñu nit ñu baax loolu nag bu ngeen ko bëggee wone mënta ànd ak ñàkk discipline ndax suñ dajee daal ñàkk discipline moo ko yàq ba ci julli juma yi ba ci gis nga jotaay bi nga xam ne jotaay bi yëpp organisé wu ñu amee télévision bi mu ngi ñëw porte la ndax ndax indiscipline loolu maa ngi ñaan yéen xale yi nga xam ne yéen la concerné ngeen xoolaat bu baax lu leen seen dëkk jaral ndax jaral na leen ngeen nekk ay nit ñu civilisé ndax jaral na leen ngeen nekk nit ñu mag ndax jaral na leen ngeen nekk nit ñoo xam ne nit ñu discipliné la su fekkee jaralu leen ko da ngeen xam ne li tubaab yi di wax ne hors la lu hors loi ci ngeen nekk teggi yoon nag yoon a fi taxaw pour teg la ci kaw yoon bañuñ ci ñu nekk ci kaw yoon wu jub bañu ci bañuñ ci dara lépp lu ñu ci yàggale dinañ ko def ndax yàq sa turu dëkk dara dara jaru ko li ngeen di xëccoog buuxante yëpp bu ngeen rangoon di ngeen ko am rang ci jàmm ñu àgg ñu def li ñuy def ci jàmm waaye puusante rëj rëj yi suñ gañu démb yi jógee Algérie amuñ fuñ toog ndax puusante di rëj rëj yëpp indiscipline rek moo ko indi te da ngeen di wax na xale yu moderne ngeen xale yu xam àddina ngeen lu ngeen bëgg ci moom seen kilifa yaa ngi nii wax leen ko ko lu ngeen bëgg mu xam ko ci yéen waa dëkk bi loolu yëpp dina ko xam waaye ci kaw discipline rek la ko mën a xamee kër kër kër kër yoo xam ne amul benn njëriñ loolu dëgg dëgg war nañ war ngeen ciy génn sori ko te yéen xale yi rek yéen a koy def ndax ñun amuñ doole ñu ko defee kon nag na góor góorgóorlu seen réew seen dëkk bi jar na lu nekk ndax boo gisee ñi yónnee ay télégramme ci àddina bi yëpp ngir Euh, euh, jaare ci nit ku jógee fii ci dëkk bi kon nga xam ne dëkk bi dëkk bu kawe la bon nag war ngeen a joxe ay jikko yoo xam ne nit mën na ci sukkandiku ba lu ñu bëgg a def ci lu baax ñu mën koo def waaye faale ma kenn lu ma neex ma def ah na nga xam ne am na loo xam ne nag am na loo xam ne kenn dootu ko nangu nañ aw ci yoon nañ nañ nañ aw nañ am discipline nañ commencé bi rang Baye dafay dem Mauritanie 1967 ba mu demee dëkk bu mu wàcc rek kër kër ji dafay fekk ba mu ji sax léeg-léeg sax moom mu ne du wàcc ci avion bi ba muy tukki ba àgg Elaak fekk fa benn teeru boo xam ne foogutoone teeru boobu mën naa am nit ñaa ngi rang-rang bu gudd a gudd ngi nekkee nii ñi ngi nekkee nii jaar seen diggante ñoom ñëpp ñu téye seen loxo alhamdulilahi lahi bàyyi jaar seen diggante ba àgg fa mu jëm waaye man mi àndoon ci moomu naa ci cawarte gis naa ci bàyyi kontante goo xam ne cawarte goo xam ne am na mu ñuy nettali benn xew-xew bu xewoon ci kër baayam ba mu demee ba mu dafa dafa jóg taxaw sax di ñu woon ne noonu la waa ji defoon ndax gis na ndax gis na dal na dal na nit ñu civilisé na nit ñu mën a jëflante waaye nañ jéem a mel noonu ñun tamit nañ fonk suñuy gan suñu bopp lañu war a njëkk a fonk waaye lu ma neex ma def rek loolu war ngeen koo dakkal te incha allah ñun ñëpp dinañ ci waxtaan imaam ak porte parole ak ñun ñëpp ak xale yi nga xam ne itam dogu nañ pour seen dëkk ñoom ñëpp dinañ waxtaan yi ñoom def ay jotaay seen naka la ñuy réglé suñu dëkk bi yàlla jar na ko réew mi itam jar na ko suñu gën a ngi ñëw suba bu leen ko yàq bëgguñ teeru wala ci lu néew a néew rek def ko niñ koy waxee takk masque rang rang bu rang rang rang bu yaru te ku nekk ngeen soriwante li nga xam ne moom la ñu wax bu ngeen ko defee di ngeen def lu mat di ngeen dina def lu di ngeen def lu kawe di ngeen def lu ñu leen respecté waaye bu ngeen def lu dul loolu yàq seen turu dëkk yàq seen turi kilifa yi yàq seen turi borom xam-xam yi ndax indiscipline warta jógee ci réew dëkku xam-xam ñun ne ñun ne dañoo am xam-xam dëkk-dëkk ña fa dëkk war nañoo am discipline ñu leen di ñaan yéen xale yi ngeen góorgóorlu ci seen bopp bu baax ba yëkkati suñu dëkk bi ci ay jikko yu rafet ci ay qualité yu baax yoo xam ne ku leen gis naw leen waaye Mérina amuñ discipline loolu war na leen a naqari yéen ñëpp fekkee waa na ngeen ci dëggu ci seen waa Mérina loolu war na leen a naqari ba ngeen dindi ko loolu laa leen di ñaan ba nag gan gi buy ñëw na ngeen góorgóorlu ci loolu wax leen na ñun am nañ discipline wane leen ko da euh, euh, ngeen taxaw taxaw yoo xam ne problème la suñ dëkk bi incha allah yàlla nañu ci yàlla dimbale salaamaaleykum